nationale ni ki démb lan moo waral nag mu bokk ci parti démocratique sénégalais di ab député libéral bu nekk ci diwaanu Mbàkke tey di jàppale benn bokk yaakaar ba tax Pape Diop kon daal ñàkk poste gu cëm bu assemblée nationale ba moom yaay Fatma Diop ne ma ne la nangu naa ne maa nguur gi dañoo jege lool sama jege yaan nguur gi nangu naa ko lool lan mooy discipline de parti war a daal jaaxaan ci parti lu ñu la wax nga daal di def defuma Abdoulaye Wade dafa taxaw fii candidature les éco yéene kaay ne Fatma Diop day ma ni la Benno Bokk Yaakaar dong moom moo ko daal di ngemb nag ba tax nag mu daal di Papa Diop moom ne ci huitième vice présidence bu assemblée nationale ñoom soxna yooyee doon sàkk nag ci bureau yu assemblée nationale yooyee am na la ñu bëgg moom yaay Fatma Diop ne ma la am naa sañ-sañ ñu sama candidature aw lenn loo xam ne war naa ko leeral kenn Moustapha Cissé Lo ci yéene kaay bi ne Pape Diop daal gàcce la ci réewum Sénégal xaalis Mbacke Baara Doli ne parité boobu ñuy wax day ma ne la dañu ko war a tàmbali nag ci bi ndax itam vice président bi ab jigéen la war a doon lu ko bi amul sens Doudou Wade mooy daal di ne mbir da koo sax daal di dégoûté Doudou Wade ne la am ci assemblée nationale de gàcceeg réewum Sénégal bi ci boppam moo daal di tekki ndombal tànkam te la ñu ko dénkoon ci wàllu nag carte ga Moustapha Niass nekkee fa lu dul nelaw ak lekk fond politique yi nga xam ne ñu ngay ñëw ci Sud Quotidien na ma treizième législature bi day tàmbali nañ seen acte deux démb la ñu daal di yeesal bureau yi Macky Sall nag daal di nag taxaw fa mu loi ba parité bi tax na ba Awa Gueye daal di fay jëlee Pape Diop Moustapha Niass daal di ne daa ñu référendum nag li nga xam ni moo di règlement bu assemblée nationale Madické Niang ñëwul woon Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly PDS ah, moo tax yéen kaay bi na ma Macky Sall day ma ni la ma ni moom ñoom le quotidien le quotidien ne Macky Sall kay loi budgétaire bu 2019 gii daf cee solde dëgg ay comptam ak Abdoulaye Wade mani la loolee daal dinañu xam ne nii la ñu ñàkkoon 2000 jàpp 2012 loolee la ñu bëgg a joyanti ñu nekk ak le quotidien yéen wax nii marche bu ñu waroon amal ñoom wàddoog bu mu gàcce day ci juróom-ñaar ci ay nit yu ñu tëyee la daal di mujjee taxawul marche ba nag daal di am enquête yéen kaay ne artistes yi day leen bu baax a baax ñu soobu ci langu gi mani la bëgg lu la wala it ab réalisme la xàcceendoo dóorandoo bu maam na ba artistes yi nag ku ci nekk kaa ngi wane sax féete ci politique gii dañuy daal di daw doxantu ci réewum Gambie ak source a mu ñuy xamal ne Louis Gomes ex directeur adjoint bu ñaa bu yaaya jàmm day daal dinañ koy fekk mu faatu ci kaso ci condition yoo xam daal di day teexal mu mel dañu koo daal di faat yéeni kaay bi ni ma ab cercueil boo xam ni mënees na koo ak favela ñàkku ko natt daal dina koy wees buñ sukkandikoo ci yéeni kaay bi libération ne damay dikkaat koon ci nga xam ni moom mooy Saliou lu toll ci juróom benni at ci kaso defoon na ko ndax dafa am ku mu bëggoon faat mu daal di mooy ñaar la àndaloon ñoo xam ni dafa ànd ak ñoom daal di jam Abdoulaye Fall mii laataa ñuy dagg tànku càmmoñam bi avocat général bi nag ñaar fukki atu kaso la sàkku woon waaye juróom ati kaso rek lañ ko mujjee tëj procureur bu Pikine ubbi nag ab information judiciaire ngir viol ak assassinat Ousseynou Diop am ñaareelu retour de parquet laataa ñuy wëri Saliou Boy moomee ñu ci tàggat yaram tey ji diggante Sénégal ak Soudan la Le Soleil yéene kaay ne ñu ngi ciy xaarandi lu rëy ci sunu gaynde yi ñu daanelee te diwaanu Louga ak l'observateur ñaari faragel daal ñoo nekk ci salle de classe def ca la leen neex ba sonn faf nelaw ndongo ya xëy jàng sa l'école ba huit heures daal ñoo leen daal di yee leen na leen woon yendu leen ak jàmm